li jëm ci wàllu saytu woowu. wàllu saytu bi ñoom am nañ ci wàllu Fatima ndax nguur moo war a xool nan la ñuy délivrer li nga xam ne moo di autorisation de construire te loolu ci ay normes lañ ko war a teg euh, dafay laaj nga wut. xam-xam wala sax nga wut xalaatu ki nga xam ne mooy entrepreneur xam nga fii sous développement Fatima baaxul te ñun sous développement daf ñoo topp ba topp ñu ci suñu dundin ak suñu nekkin ndax bu fekkee ne yow da nga bëgg a tabax sa kër bu war cee investir ay millions marché bi nga xamante ne mën na bañ a yegg ci ay millions nga war ko jox entrepreneur mu mën laa teg ci benn plan bu baax wala nga jox ko architecte mu mën laa rëddal kër seetal la aménagement boo xam ne dina doon sa njëriñ yow ak sa njaboot yaakaar naa loolu sous développement la ndax ki mën a jël ay millions ko terrain jël ay millions tabaxee ko kër mën naa jël as comp ci loolu xam-xamam màcc ci li nga xam ne moo jëm ci tabax mu mën ko cee dëkkal bu ko ko defee norme yi mën a wuyu ak li nga xam ne moo jëm ci long terme parce que tamit bâtiment yi ku ne lañ koy jox da ngay xool la nga gis ab maçon boo xam ne bu amee 10 ans d' ñu ne entrepreneur la wala nga gis koo xamante ne bu yàggee ci yi nga ne kii war naa ko mën a jox ay chantier mais loolu moo fi am parce que nay nañu pour dem di recourir ci ñi nga xamante ne ñoo di entrepreneur yi ak ñii di architecte yi te ñooñu ñoo war a rëdd kër yi mais aussi service yi nga xamante ne état moom moo leen ngardaaju war tamit di lu jëm ci tabax yi xam nga tey jii démb li am Rufisque loolu bettewul chaque oubien soo seetloo mm-hmm. nawet bu jot mm-hmm. Dakar di nga dégg fii étage bu fi normelu mm-hmm. bu dul Médina doonul Grand Dakar doonul Parcelles Assainies dina doon Tëngéej mais loolu ça veut dire que état ci boppam mu ngi seetaan te tey jii képp koo xamante ne décédé ti nga ci yenn normes yi nga xamante ne ci ay batiment yu yàgg la mun na jàpp ne état moo seetaan te non assistance en personne en danger wala mise en danger de la vie d'autrui la mm-hmm. ndax yenn bâtiment yi ñu recensé ne nañ ko nërmeel mais loolu lan lañ ciy xaar dañuy xaar nit ñi di fa faatu di fa faatu bu dee nag li am ci CIPRES fii batiment bu bees la mooy li ma la wax mm-hmm. boo wutul ñi nga xam ne seen xam-xam màcc nañ ci wàllu tabax joxoo leen sa chantier mais bu ëllëgee bu dëkk jotee loo ca fekk rek nga xam ne la nga daan sakkanal ca li li nga doon tabaxee moom nga jëndee sa bakkan yow ak sa njaboot. Mhm. Abdoulaye euh, ñu gis ne ne biram Faye euh, daal dinaa wax ne ne dinañ taxawal ab centre centre boo xamante ne day jëm ci wàllub euh, précoce ñeel wàllu risque yi ak sécurité boo xamante ne peut-être mën naa indi saafara ci yenn ci batiment yi di daanu ndax jot nga ne lu nu mel mën naa indi saafara ci situation bi. ba mu nekk effet d'annonce rek. da nekk loo xam ne lu ñuy teg la. ma pare mu ñu assurer li nga xam moo di le suivi parce que tey jamono ji eh, yegg nañu sax boo tabaxee sa batiment installation électrique bi balaay Senelec di la jox li nga xam ne moo di compteur wala leen dafa am structure privée boo xam ne danga koy fay mu ñëw saytu installation bi ba pare joxal jox la avalam Senelec doog la ñoo installé donc il faut tamit ñu am bureau de vérification boo xam ne jàpp naa ni képp kuy tabax moo xam privé nga moo xam jàmbur nga nga xam lu mu doon bureau de vérification boo xam ne am na loo fay fay muy dem ci gafak état ñoom ñu war a mën saytu li nga xam ne moo di tabax bi fondation bi lan la fer bi ñu utiliser est-ce que répond conforme aux normes est-ce que itam bétonnage bi ànd ak suuf gi. jaxase bi matee na ak li nga xam ne moom la ñu soxla si pàcc bâtiment bi pour ñu mën a éviter yéen yi mais euh, euh, malheureusement tey lu bari amu ci tey da ngay gis ni effectivement la ñuy tabax. lu bari ña koy def amaana mën nañu liggéey mais duñu professionnel à telle enseigne que daañu mën a defar loo xam ne sur une longue durée dina mën a respecter li nga xam moo di ndëgër laay bi mm. euh, bâtiment yu bari tamit gis nga étanchéité yi euh, duñ ko duñ ko duñ ko du respecter normes yi euh, buy taw maanaam day mel ni seng la wala leneen parce que ndox bi day jàll te loolu dafay exposé li nga xam ne moo di bâtiment yi léegi nag yi nga xam ne dafay menacer ruine foofu itam état war na def euh, li nga xam moo di euh, matukaay jël ko pour mën a daaneel bépp bâtiment bu ñu répertorié boo xam ne amaana suba mën na nërmeelu pour que itam ñu préserver euh, bakkanu doomu aadama yi waaye ay structure privée parce que boo nee li li daanu dem mm-hmm. structure privée la mm-hmm. am na ay structure publique yoo xam ne xam na ni kenn dëkkatu fa lu mel ni HLM Maris donc jafe-jafe bi daal yaatu na. Mhm. si tabax koo xam ne gaawantu la wala defe naa ne loolu nag war ci andi ay solution mhm. euh, dañuy àddu ci coordination bu association presse bi nga xamante ne lancé na ni ki tey jii li ñu duppee assise nationale média li liñ ci jublu bokk na ci rek démb càmbar jafe-jafe yi nga xamante ne secteur bi ñu ngi koy jànkoonteel bu baax a baax ci yooyee jafe nag bokk na ci précarité bi nga xamante ne ne reporter yi dañu koy jànkoon teel naka noonu itam attaque yi ñuy teg ci kaw ndoddub taskatu xibaar condition yu yi ñuy ñoom itam eh, ci wàllu liggéey bi ak yu nu mel ci diirub ñetti weer lañ fas yéene rek eh, daal di saytu lu nu mel ak commission yi nga xamante ne moo sekk boobee ndaje ñu ànd ceeg Abdoulaziz Sow da baax de la presse bu ñu salfaañi yenn ci ay journaliste ñu menacé ndool mi sonal leen teg ci stage yu dul jeex ba mukk ñàkk couverture médical ak yeneen yu ni mel lile bokk ci lu presse sénégalaise bi di dund ñun nag dañu rax ñoo xamante ne seen objectif waxuñu ko ñoo ca nekk am na ñoo xamante ne amuñu sax xarañtif bi ñooy diriger yenn ci ay rédaction yi presse sénégalaise bi daanaka dafa nekk ci fayit ndax Covid bi grève Ukraine bi waaye itam yenn ci manifestation publique bi perte yi boo ko boolee téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya la. ay jafe-jafe yu gàllu góoseel métier bile ñu war ci ay saafara jaaree ko ci bileb lël li ñu bëgg mooy loi bi di encadrer stage yi ñu jëmmal ko jeunes professionnels yi am contrat yu mucc ayib waaye itam ay cotisation sociale Jacares avec vous lu tukkee ci bile waxtaan bëgg nañu mu soppi xar kanamu presse ngir mu gën a am ab liberté ak leneen ni lu bëri ñu ko ci xaar. c'est le lieu ici et maintenant. lën bi kon war nañ ciy jaaree waxtaan lépp lu jëm ci wàllu code de publicité bi itam dinaa ci jaaree di sàkku ci njiitu réew mu dugal loxoom si journaliste yi nga xamante ni caabi da leen a féete gannaaw. des médias en détention ou sous condamnation judiciaire. liggéey bi war a duré ci lu tollook ñetti weer ñi yëngu ci wàllu média jàpp ni ñu refi tukkee ci lépp lël dina indi saafara yu mucc ayib seen anamu liggéeyukaay rawatina yu ñeel jeune reporter yile Abdou Aziz Sow Dabakh cérémonie boo xamante ne nag jëwriñ bi ñu dénk wàllu communication moo ko daal di présider euh, Moussa Ba Bokar Thiam daal di ne nag naam am na ay jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci secteur bi waaye itam war nañoo càmbar bu baax a baax ni euh, journaux yi euh, di ñëwee bés bu nekk fii ci Sénégal loolee nag assises war nañ cee wax waaye itam ñëwaat na rek ci li nga xamante ne moo di naam war nañoo protéger taskatu xibaar yi waaye nag warul tax ñu daal di rek def lu leen neex ñu teewlu ay kàddu. ba Bataille ak Abdoulaziz Sow Dabakha. aujourd'hui nous avons 45 quotidiens au Sénégal. plus de 300 fii ci Sénégal am nañu lu tolloog ñeent fukk ak juróomi quotidien lu ëpp ñetti téeméer ci ay sites d'information. kon tey ñu mën a wax ni secteur bi la du secteur bu dynamique nit ñi dañuy dugal seen xaalis ci def secteur tey naan du secteur bu dox kon nagu assis bi war naa li ñeer ci lu ni mel fan la xaalis bi jóge ndax xaalis bi ci ay lobby lay jóge ndax ñi ciy dugal seen xaalis ñoom seen objectif leneen la lépp kon assis yi ah, war na koo lijjanti bu baax ak nu munta demee état bi taxaw na temm ngir jàppale leen ci lépp liggéey lu jëm ci wàllu ko démocratie nag boo ko bëggee natt ci presse bi rek ngay xool journaliste dañu ko war a protéger waaye nag liberté boobu warul tax rek mu dugg ci ay njombe. mais la consolidation également de cette liberté ne donne pas droit aussi à la dérive. Euh, Abdoulaye euh, assise des médias ndax jortu nga ne lii mën naa indi saafara jafe-jafe yi nga xamante ne nekk na ci biir euh, kërub taskatu xibaar yi. njortu naa ko te jàpp naa ko te jàpp naa ni itam lu gulet ñu def li nga xam moo di assises yu am ndayo tey du acteur média yi kese parce que ay organisation yu bokkul ci média itam ña nga fa ay kuréel yoo xam ne dañuy dugg si li nga xam moo di commission yi nga xam ne teg nañ ko te amaana sax mat na euh, lu toll euh, ci juróom-ñaari commission donc commission yi bari na ci renforcement de capacité formation sécurité liberté euh, ak li nga xam mooy wàllu koom lépp mu ngi ci biir loo xam ne taskuti xibaar bu bëgg mën nañu dugg inscrire ci commission bu ko neex def naa loolu c'est un grand pas en en avant pour ñu mën a waxtaanee suñu jafe-jafe jafe-jafe yi bari na tey ñu nga fa woon dégg nañu suñuy euh, euh, ancien kàddu ñuy yëkkati euh, jëm si li nga xam moo di assises yi gis nga Matar Sylla gis nga mm-hmm. ñeneen ñu fi nekk itam jàpp naa ne nag point de départ la pour li nga xam moo góom yu bari yi nekk si médias yi ñu xool ban alcool moo koy faj ban mercurochrome lañ koy lañ koy fajee. Mm-hmm. pour effectivement journaliste bi tam war a dundee liggéeyam. Mm-hmm. waaye itam am fierté si passion bi nga xam ne moo ko animé ba mu tànn liggéey bi mu nekk benn liggéey boo xam ne.